أعوذ بالله الشميع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله جنا بسنت بر سبحانه وتعالى دجول سانغ سانغ مي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ساس نيو كو ديفه ني نواي فيزون ميديا ني في تي توبا مباك تي دك سون مام شمدو بام خاد رسول دي واجا 18 سفر جي ليپ لو خامتني خيونا توبا ني نواي الفيزون ميديا نان لين كو جوخ ان ديريكت ان شاء الله ربي ني تي اندك سيدا سليمه تمرون tey ñu ngi fii de si Touba Mbacké dëkk su Maam Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul dañoo sante kenn kenn ci Baye Fall yi ñu fas rek bi mu gisee màggal gi sëñ bi naa def waaw waaw waaw maa ngi fi yaay man man quoi maa ngi tudd gi màggal gi waaw neex rek gisee màggal gi gi neex na rek waaw neex na loolu kay xam nga la ma war a gi màggal gi waaw xam naa ko suñ Touba dafa waxoon ne bis bi bu ñëwee demee cantale suñu borom daa ne xar li ko daal xar ba ci gannaaw ba gileem nii lépp loo amoon na nga ko defal suñu borom daal ni war naa wàcc naa wàccaa nag képp ku ma yaakaar daal ni lépp lu ci waay def bu ëllëgee bu kii ko fonk kii du ko fonk kooku fonk dana ko tiime loo koo xam ne dana ko fonk loo xam ne kenn doo xam ne muy toll. jërëjëf màggal gi jërëjëf. noo gisee màggal gi. màggal gi daal xanaa neex rek comme ni ko Sëñ Tuubaa waxee woon di dala ci ginaar ba ji gëlëm nañ ma ci sant la yàlla Sëñ Tuubaa nag dama dama dama cee lott. kon na ngeen ma sant yàlla sant la yàlla waaye ñun ñii tamit mu ñuy ñun taalibe yi nga xamante ne dañuy sëñ moo nañ nañuy sant sant la yàlla ñun ñii sax lott nañ ci waaye du teye ñu sant yàlla ndax sëñ Tuubaa def na loo xamante ne kenn du ko def à part amul benn der bu ñuul bu ko def waaw parce que moo ni nafsi wa diine suma ahli wal walad wa maskani làkk wa bi abdu abdul abad jërëjëf jërëjëf moo ni waaw moo ni yàlla giñ naa ni yàlla nekkal na ma waaw waaw mu ni yajuudu ni xindal maalikil muqtadi kullu wàlli kullu tàq wi xindal jinaan yàq yuqtadi nee na sëñ maanaam sëñ Tuubaa amul tànki gannaaw tànki waaw tànki kanam rek la am amul tànki gannaaw yaay boobu ñu ngi lay maa ngi leen di fay bu baax. ñoo gisee màggal màggal bi xanaa neex sant Serigne Touba neex na torop. waaw ñun ñu ngi noonu ñu ngi jógee ba Casamance ñii ñëw ndax màggal bi. ndax sëriñ bi moo ko waral kontaan nañu torop waaw yàlla ñu fekkee déwén yu bare dama xaw a kii yàlla maa ngi dem. si nga paas ba nga jógee Casamance. Eh, eh, paas na presque 4000 rek la ñuy kii yàlla woon ndax adiya Serigne Touba lañ ko def. màggal gi lu ko waral. màggal gi Serigne Touba moo ko waral. lan la ci wax. daf ni màggal gi képp ku mu nekk taalibe bu mu mënti doon képp ku di képp ku di jullit na ma sant la sama borom si bis bi ndax doon na loo xamante ne nii da koo jaayante ji woon. ngir Seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam Serigne Touba fi bi wote woote diine fii jinne yi ak njuuma ak xabru yi ñoo ko woon fii doo fi woote diine doo fi jaamu kenn musu jaamu aras ak barbar Seex Bamba naan jinne yi tuub leen laay xanaa xamu leen maa xaadimu man duma saami daa ñëw tey naan koo dina yëpp booloo yor seen xeej ya te Serigne Touba doo foote diina ndax fii du tukkuloor du soose kenn mus fee jaamu aras suufu Touba si doo foote diina doo fi jaamu kenn du fi jaamu aras ak barbar Serigne Touba rek moo fi nekkoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak rakam ja maam Thierno Ibra Fati mu nekk loo xamante ne ni jullit yëpp ma kenn képp ku naan asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Serigne liggéeyal na la Serigne Touba xàmmewul ku ñuul xàmmewul ku weex tey nasaraan si yëpp ñu ngi ñëw boot si ginnaawam ngir lan bëgg lu baax kon képp kuy jullit di woote jullit nga war nga mën a jàppale Serigne Touba si bisam bi santale ko si bisam bi ndax bis bi doon na loo xamante ne nii Seexul Xadim nekk na ki nga xamante ne nii foo ko mus a fekk rek gisoo si moom yére bu ñuul mbubbu balan rek lay sol te ku ne na ne balan jàmm la comme ni nga muuroo nii loolu Serigne Touba bëgg jigéen day muuru góor di sol jot sant la ko bisam bi berne ginaar ku ko rey ak ku rey gileem yéen a yem si bis bi bu rey ginaar ba xeeb ko bu rey gileem ba naw ko. waaw xam nga la ma moom. da ngeen a ñëw Touba. waaw waaw mais xaw ma lu ma war a màggal. loo gi. màggal gi moom neex na trop. yaay ziar naa la. waaw yal na yàlla nangu ziar. maa ngi si jàmm maa ngi si gi. xanaa kontaan di ñaanal àddina bi yëpp képp ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo képp ku fi taxaw yal na yàlla faj sa aajo yal na yàlla genante be borom jumaa ji sàmm ñu aar ñu bés bi ñëpp a kontaan man maa nga jóge ba Gàmbi waaw ñëw màggal si. yaay booy ñaata nga paas. paas naa ñaari junni fay taxi yi junni pour ñu yóbbu ma fi ma dal. waaw waaye sëñ Touba jaral na ma